fi nii man yaayam ci yoo xam sax ak beneen nijaayam la xam ay saab yi dañoo taxaw police ñu wax ko benn affaire mu ne ñu ne man bu ma ñëwati si kër gi bu ma ko woote téléphone ah fu ma ko romb sax bu ma ko xoolati man loolu noonu wax nañ ma ko mais man nee naa leen man nee naa sama xol man su ma bëggee def dara yaa xanaa yàlla yàlla suñu borom moo tax du ma def dara man daal dama lay ñaan daal su fekkee mën nañ ma fay sama xaalis yow nga jàpp si parce que laaj nga ma tey loo si ba a jàppee pour ma jot sama xaalis wa ilaa tamit ñaari solution ma jot sama xaalis wa ilaa su ma ko mënul jot nga wax ma man mënuñu laa fay affaire yooyu loolu laa bëgg daal instant yi tontu parce que man tamit ni ma bëgg a def su ma ko defee tamit ah nga métti de bi daaxe dem nañ police ñu may menacé ñi ma bur wooti madame Diagne bul demati seen kër ah foo ko gisee bu ko bu ko xoolati affaire yi parce que police tamit deful liggéeyam bu mu war a def waroon na ma xam ni man ñoom sax liir nañu ay am war nañu xam ni kon kii dennal jot sama xaalis waaye dañu ma lan moo lay won ni la yow da nga ko envoyé xaalis ma ne man moom dafa ma ne ni ma papaam daf leen liggéey ak papa ji parce que papa ji entrepreneur la papa ji di ko jox ay xaalis bu bëri mu koy dégg dégg si compte am confiance la ñu amoon maa ngi moom xam nga ko defal 5 ans mosoo leen am ay jafe-jafe xaalis xëy wóolute ba moo taxaw wóolute wóolu ko moo taxaw moo tax ma koy dégg sama xaalis instant bi sama 3 millions 40 mille francs la ma ameel nag man nag yaayam yaayam ci boppam façon teraanga mu nekk defal naa façon teraanga mu nekk defal naa yaayam moom moo mën a ñëw teg ba may def li yaayam di ma jël moom Marème Diagne. di ma yóbbu si yoon ci ànd ak seen benn nijaay mais kon nag dama damaa xamatul essayé ban àdduna la ñu nekk man nag soo gisee ma lay vocal nii dama lay wax benn affaire daal yow essayé bi daal sa jabar su fekkee mën nga a fayal xaalis wa ilaa nga fayal ko parce que man tamit sa doom laa te dama nekkoon ci àll bi di liggéey xam nga bu baax immigration la muy daj maa ngi ni dërëm yoratuma ko dërëm yoratuma ko xaalis ba moo tax mu ñëw mar moo ñëw Sénégal instant soo gisee àdduna léegi léegi sëy léegi intérêt daal la ñuy sëyee intérêt la sëyee soo amee alal léegi mën nañ la sëyee sëyal sëyal soo amul alal ka sama genre di taxalaat is la ah ñu xool ku la gën a am alal ñu ànd ak moom mais daal li may mën a wax daal instant bi yow daal loo ci mën a def nga jël sa batuwaay soo fay sama xaalis nga sama xaalis fekkee daal mënu maa jot sama xaalis man tamit ah, instant bi yoon jeexul na yoon jeexul de te ndaw laa nag instant bi nag lépp loo xamante ni dama kaa def dama kaa def xëy na tamit mu doon loo xamante ni dama ko def tamit ay problème tamit man teel laa leen wax sam bopp parce que moom dafa dem police ni man wane ay vocal dama ko doon menacé pour rek ko man nee naa leen waa police man menacé naa ko mais dama juum moom moo tax esa bi nii àdduna dafa doy waar léegi dañoo nekk si jamono joo xamante ni léegi esa dañuy bàyyi ba problème am ba dara am ci ñuy suma yëgoon damay bañ nag affaire bi ay réccu di ci am daal damay bañ ay réccu di ci am esa bi daal li ci mën a am yow daal jàppal ni wutal xaalis nga fay ma wala suwaat ñu xool na la def la laa amoon pour wax na daal esa